étaient euh, tellement, euh, qui étaient dans des difficultés extrêmes pour pouvoir faire correctement, convenablement, euh, de la façon la plus décente son travail. Malheureusement, l'exécutif, le deuxième pouvoir, a violé des droits yi nga xam te moom la journaliste bi war a am pour faire passer l'information parce que aujourd'hui pour parler de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko c'était un événement euh, essentiel solennel et le public a le droit de savoir ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui se décide Malheureusement, j'ai dit que le président Macky Sall est la première personne à violer les, le droit des journalistes. On n'a jamais vu le président Macky Sall, depuis qu'il est accédé au pouvoir, qu'il se prononce sur des questions qui concernent ce pays, mu wax ko ci réew mi bitim réew d'ailleurs sax problème yu am jax-jax dëkk bu noonu tàkk yooyu noonu du ko fi fekk de xam naa ñàkku démb sax moo tax mu liy fekk ko fi de levée unité parlementaire mais xam ne le pays c'est déjà barricadé amul fu nit mën a jaar sax maintenant waxtu wu mu waree am wax dem RFI jàkkaarloog ñoom loolu jox nga war ma sa presse de raison de plus d'autant plus que aujourd'hui on a vu même les yi waa BBC amoon accès pour la pour def liggéey bi nga xam ne moom la ñu def ci ci affaire pétrole beeg gaz bi amuñ accès bi ñun fii Sénégal États-Unis les journalistes ont l'accès à l'information ils ont accès à l'information amul ci benn blocage dans tous les états euh, dans tous les départements dans tous les états ils ont l'accès à l'information ils ont accès facilement à l'information te loolu mooy yoonu journaliste journaliste il joue un role d' interface entre ñiy joxe ak ñiy déglu émetteur ak récepteur mais brutaliser ay journalistes il est temps loolu jeex ci Sénégal te journaliste doit faire bloc d'ailleurs moom la Synpics s'est prononcé là-dessus ku ci bëgg feeñ wala nga nekk ci ku jege wala amagoo tous amagoo dara. di wëreelu ci couloir yi jël leen ma fi interview nangam sangam alors que boo ñëwee ci donkaase gi di fay téléphone ak changer numéro ak di jaay jafe-jafe lu toll duñ ci lenn loolu moo war a jeex Sénégal il temps journaliste yi ñoo war a def bloc privé leen lépp jar na sax ñu privé leen lépp bu ñu amee soxla parce que fañ koy yaakaare muy rajo télévision nationale ña ko fay seetaan bëriwul Sénégal ñi koy seetaan bëriwul jël dix dix sénégalais. kenn moo ko ciy seetaan te boo ko demoon ba koy xool mag la moo xamante nii depuis Senghor la ndax dañoo yàgg ak RTS defuma ko pour attaquer sax RTS suñ rajo télévision sax ñëpp ko bokk mais pour wax ne war nañoo wekk journalistes yi war nañ leen a jox gëdd jox leen da ngay gis sax d'ailleurs dañuy dem pale ndeysaan man j'ai une fois euh, plusieurs fois assisté des rencontres foofu au niveau du palais mais da nga fay yenn ba ngoon benn ndox butéelu kiral mu ndaw lañu lay jox doo lekk doo def dara wala booy lekk sax bu muy tudd dina metti lool. sànni la ci couloir yi boo demee conseil interministériel même chose ci couloir yi ngay bëgg a dee amul aménagement jox gëdd de presse même en temps de guerre les journalistes sont boo demee dans les chaînes internationales la presse elle est respectée mais malheureusement fii dañu xamul gëdd de presse te qui détient l'information détient le pouvoir information c'est une denrée à consommer et qui est in, indispensable ti la marche d'une démocratie, pour la bonne marche d'un pays également. Il est temps nag ka ñu jox weeg journalistes yi te ñun dañ ci jël suñu matuwaay.